mbokk yi nga xam ne yéen a ñuy bàyyi xel fi nga xam ne moo di Sénégal instant ak xibaar gi TV naqar ak moo ñu andi fi nga xam ne mën naa ne moo di ci diwaanu Mbour tefes ñu jàkkaarloog suñu benn yaay booy boo xam ne mën naa ne la am nañ ci ay victime ay ndawam yoo xam ne mën nañ ne jot nañoo ñàkk seen bakkan ci li nga xam ne moo di géej gi avant ñoo sori ci waxtaan wi dañ koy bàyyi mu nuyoog mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre ñu mën a jublu ci waxtaan bi salaamaaleykum yaay. maaleykum salaam. na ngeen def alhamdulilah ngeen def Billo Diop ah ñun yàlla dafa def sunu gaal moo tëmboon si géej depuis boobu ak léegi mu ngi si ñaar fukki fan ak juróom-ñett ñu ne gaal gi dafa riir si géej gaal googu réer si géej nag sunu njaboot si la bokk sunu njaboot a ngi si ndax man am naa si sama ñaari doom ak sama ñeenti sët ñu ngi si gaal gi ah, yàlla def na nag depuis boobu léegi dañoo réer la nag. di eh, tàllal sunu loxo rek di ñaan dimbal mu sétal nu ndax bato yaangi ci geej ñi wi yalla mëna def bu ñu dawee mëna dajé ak ñoom war leen mëna dimbali ci lool dal lañuy lancer appel waaw ndax ñoom dal lañ fi joggé woon xam nga xalé yi ñoom bu ñuy dem duñu taggo bu ñu fi joggé dem nak doomi mool lañu mool amul teeru tax ñun xalé yi bu ñu tëmbé fi dañuy tëmb fi nga di leen seen fi ñu na teer nañ Casamance nga di leen seen fi ñu na teer nañ Guinée nga di leen seen fi ñu na teer nañ euh, euh, Bissau xam nga ñu mool amul teeru ah, ñuy tëmb suñu doom yi génnee fii dem dañuy yaakaar ne rek si teer yooyu la ñu nekk dañuy dem géej waaye ndekete ñoom demuñu géej dañu gis seen morom yi dem ñu dem ñoom nag yàlla def na nag yàgg nañ ci wax dëgg yàlla waaye mosuñu kafe yoonu yoonu wii yoonu barsa bi mosuñu ko kafe mosuñu ko kafe motax tax mosuñu leen ci foog loolu motax yeglu wonu nak bañuy dem wax yalla yeglu wonu ka leen yobbu itam yéene la amone rek pour yobbu leen ndax bu doon sagom tay ji mu mu yobbu ñamu yobbu mu am ci ndam ñamu yobbu mu am ci ndam kon nak, comme yalla defe ne nii ñun ñep dañuy bokk yalla delu wat sunu bop ci yalla delu ñaanat dañuy ñaan dañu bëgg ku nu xoolle ku nu seetle navire baa ngi fi lépp a ngi fi ñu dimbali nu te yàlla rek a tax te njaboot. doom di dem euh, déggoo nañu ak yéen ma yaay booy dañoo bëgg a jël gaal geeg wala leen. eh ah déggoo wax ñooñu ko sax fay tàggoonu tàggoonu léegi yaa ngi gis ni moo lii boo yeggoon léegi ñu ngi pare pour dem géej mais bu ñu tëmbee itam xamoo fu ñu teer. da ngay toog rek boo leen gisee buñ teeree woola rek ne la teer nañ ñu ngi mbuur wala ñu ngi jowaala wala ñu ngi dar wala ñu ngi feneen wala ñu ngi feneen amul mool amul teeru ñoom dañuy topp jën rek fu jën nekk la ñuy topp ndax ñun suñu waa kër ndëgën si daan leen fekk ñu ngi sa kap si kiriñ waxtu wi daaw leen di fekk après tam xarit ngi tam xaritee ñetti fan ñeenti fan dem nañ ñu ngi tam ñu ngi kap waaye ren xëy na lii la fi lii la leen yàlla boole moo tax ñu toog fi sax ba heure bi ba gaal ñuy dugg ci gaal di dem waaye mosuñu fooyee gaal. est que xam ngeen tey jii ñen ñoo jël gaal googu ñu koy dawal xam nga leen. wax dëgg yàlla ñi koy dawal xamuñu leen xamuñu leen parce que man nii ma lay ma lay wax nii wallahi sama bàmmeel laa toog xaw ma ci dara man dama amoon dëj Cees bi ma ñëwee lañ ma ne xale yi laajte leen gisoo ñu ne xale yi dem nanu lii laa ci am. mënuma la ne lii la ñu yóbbu mënuma la ne lii la mel mënuma la ne ci gaal gi lañ dugg. su ma la nee gaal gi lañ dugg wax ma dëgg. léegi am ci ay nouvelle. benn nouvelle. amoo ci benn nouvelle. fii nag mu nekk fii ñu dugg nii. wax dëgg yàlla sunu dig digal bi ba kii toog sax rakk ma ngi kii toog nii. rakk ma nga ca gaal ga. famille la. famille. gisunu gaal gi mu ngi ci géej ay gisunu gaal gi famille sunu famille depuis bi ñu demee daal ak léegi ñu ngi si ñaar fukki fan ak juróom-ñett si tey bi ñu demee ak léegi bi ñu fikkitee kitee ak léegi tey la seen ñaar fukki fan ak juróom-ñett moo gaal sax daan am weer si géej bu fekkee dañuy nappi dañuy am weer si géej mais bu fekkee yoonu Barça bi ñuy jël la gën saa bëri dix jours waaw. bu fekkente sen seen yoon lënt na ba lënt ci 10 jours rek da ngay deg ñu na gal gi te nga ngay gis gal gi egsi ndax gal le léeg ñu daw ko juróom-ñetti fan sa ngi daw ko juróom-ñaari fan sa ngi daw ko fukki fan maximum xamul leen ci lu ñu nekk nappi nappiwunu ñu nga ca gal ga ca gal ga mbeuk ga waaw gal ga dem sen sen at si ñaata lay toll kenn ki dal war na am ñaar fukki at ak juróom ñi ci dess fukki at ak juróom ben jaar fukki ak juróom-ñett ki ci top ki ci dess ba ma am ay fukki atak juroom ñett fukk ak juroom ñent ci ñoo rek la tollu ay ñoom ñamay xalé lan kenn rek ci am jabar kenn na ci am jabar moy ki am ñaar fukki atak juroom mo ci am jabar am ñaari doom mais ñi ci dess kenn amul jabar kenn amul doom ay xale ndaw lan ah juroom ñi ci dess ñi nga am ñu bokk ñu bokk ka rek ndax li yeb mënon lañ ci mëna fekk parce que ñu len pass mayu ñu len deureum da ngeen nu yeureum rek te yalla tax ta xamne yeen seen porteur de voix ngeen seen kàddu yegg na foo xamante ñun suñu bos yeggu fa kon yéen bu ngeen ngeen génnee ñëw di ñu dimbali itam di ñu def dara lu may di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla di sant itam suñu mbokk yi nga xamante ne bi ñu ngi ci jàppan wax dëgg yàlla ndax boobu ba xam dem nga fa lu waay mën def nga ko ñëpp ngi ñëw di la massaw ñëpp ngi ñëw di la wër la ñëpp ngi ñëw di la bu fekkoonte ne bi nag lu ñu foogoon na teel koo yëg amaana lu demee nii waaye nag foogunu ko te teelunu ko yëg loolu moo waral lii yëpp ñu ñuy sargal ñëpp di ñaanal yàlla ñëpp képp koo xamante ne kii bi ñëw nga fi itam gis nañ coono gi nga am gis nañ li nga si jànkoonteel ba ñëw ñu ngi leen di ñaanal yàlla gudd fan ak wér yàlla yàlla jàppal leen jaayro baati nan ndax lii yëpp mënoon lañ ci toogoon seen foofu itam bu weer dee da ngeen dafayee si nekk bi ngeen di ñëw joxuñu leen paas mayu ñu leen da ngeen a toog rek xam ne ay nit lañu ay am nañ la ñu mbit te ngeen ñëw di ñu dimbali te yàlla rek a tax ndimbal li ngeen ñi dimbal yéen itam yal na leen yàlla xettal te yàlla rek a tax li ngeen sóobu ay ndaw ngeen yal na leen yàlla jàppale yoonu ndaw nag du gaaw waaye kon nag ñiitam itam ñu leen di ñaanal yàlla yal na seen ndaw yegg ni yoon si kattanu yàlla baaxam jërë geen jëf visit